مثل ملان على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني الحمد لله رب العالمين la ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu santati yàlla bu baax bu baax a baax lii damay wax ni bulëg morse alom na ko gërëme coy duñ ci dara ñii ngànk liggéey bi ñoo coobarewu ci lii yaatu ba yegg ci fii ñoo ko joxoñ kii di kilifa gi àddu ca ci yéeneem yàlla fekk ko ca mu bisaab bii jëm ci ndogu yi ci koor gi ci jumaay Ahmadul Xadim ji lu yàgg dëgg la waaye bàyyaay ndongo daf maa waxoon ne lu yàgg dëgg la waaye bu jëmee ci yàlla ca doon dëgg yàgg na busoo yàlla na gën a yàgg na gën a yàgg sallaaw boo sañoon fu ñu dégg koy liggéeyal Ahmadul Xadim ilhaamulatiful xabiir yegg fa yéene nga ko waxe nga ko jëfe nga ko bu ñu see fii yéen la kon liggéey bi moo taxaw nii nekk liggéey bu ngoy gépp am yéene ndax jiima fay bor te sàllaa munuñ laa fay bor bu lu jógee ci sa kàddu lu ne mbaal bu jógee ci Touba Ngoy jëm si Touba gii xel ci ka xel di njëkk dem mooy seen jëmm ji ndax wax nga ko ci ñun jëf nga ko ci ñun sa baaraam a tegu woon fa sa yéene yeggoon yàlla suñu boroom fekk la caag ba tey lii lii dolle ku ci ñuy sant bu baax tey ñaan damay wax ni mat nga ko sëkk bu so taxawaay bi yàlla na gën a yàgg waaye ñii nga fi bàyyi ñu di ay ndaw sàlla mat nañ ko sëkk ndax du jenn jamono ju ñu ñu wone wut loo tax liggéey bi gën a yaatu sag barkeel barkeelu kàddu tax lépp luñ ñu joxoñ buñ ca tàbbee len lu dul alhamdulilah rek du du ca jógi koor waaye duñ ci dara lépp yéen la damay wax ni ba ngay wax ne boole leen ci ajjumay at mi dangaa meloon ni ku tiim lépp ñu noonu la fas nañ ko yéene incha allah loole mooy law di law di law di law ba yegg fii tey ba koor gi tàmbalee la ñu waxandoor ne bisaab bii dey ndax duñ ko wax jox waa Touba bañ ko waxee tamit lañu ci yéene woon te wax ko tislaayu amul ko diim mooy sàllaa buñ ñu ko joxee day du dellu gannaaw la jàlloon jàll na waaye tey jii juróom benn fukki saaku ak juróom benn moo yegsi seere luñ ko kenn nit ku dul amul kenn nit defu ko mboole seen ngooy gépp ko def te am ci yéene lool am ci yéene lool lool lool muy mag muy ndaw di góor ak jigéen ñëpp ci am yéene kon ndigal daa jiboon jëfe nañ ndigal li njëriñ la ñuy xaar te wér na ni sallaaw nangu am na li ñu leen di ñaanloo mooy mu sax ndax ñu daje ngërëm bu sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax lépp ci turu Baye Abdou mii lañ ko xee ci turu Ngoye Diop kon sant nañ bu baax bu Bousso gërëm nañu salaamaaleykum. xam naa kàddu yi daa mënta ñàkk waaye. daanaka jurutoon mu jib ngir xam nañ ko nga weesuut sant ak ñaan ak nangu ndax liggéey bi wax dëgg yàlla ku ne xam ne lii xëju ci jumaa ji waaye seen positif ak seen manin ak seen doxin ngeen ci feeñal kon wax ngeen jëm ci ku mat a jëm koo xam ni boo wax jën ci woon dafa gàttal bi Cheikhul Khadim ku ne jëf ji ku ne xam ne ne jëf ji am na xabul suñu borom nangu na ko ndax bu du demee nii ndax ba ngeen ci suba ba nekk ci liggéey bi fu ngeen teg seen tànk ren bu déwee ne rek teg ngeen ko ci kanam yàlla na dox ba ci kanam Cheikhul Khadim te xam ne noonu lay demee yàlla yàgg lool bu ko ne def ko ni nga ko bëggee sa njaboot def ko ni nga ko bëggee ba ak Seexul Xadiim xam ne loolu mooy seen yéene xam ngeen seen seen dund waaye seen njaboot ngeen ci sóoraale ndax doxin wi xal la waa njaboot ngeen nii mooy doxin wi ngeen ci doxe ndax nii ku ne xam ne mag du doxee nu mag li ñuy wax nu xam nu ko waxee bu gaynde bu ñëw mu ngoog nii ngeen di jëfe moom njaboot ngeen di wan ne nii mooy yoon wi te it noonu rek moo yoon wi nag ndax nit ki li muy def ba tëlee te ko ko def njabootam di ko def mel na ni ma ngi koy def ba tey te njabootu ko sàkku loolu rek nga koy doy waaye xaq naa bi ñu dur yaatiim xam moo ne njaboot gi dañu leen yéegal ci seen girifa bu fekkee topp na leen ci gëm ngañ gëm nun euh, de ñu ngi sant yàlla ci yéen bu baax a baax ndax ànd gi nga xam ne moom la sëñ ci dara lépp suñu njëriña lépp suñu njëriña damay wax ne fi ngeen féete moo buy fii ku leen ko fi féete cool yëpp laa wax nag fi daayir bi féete ngooy fi daayir bii féete waa ilaama sifil xam fi ko féete bu ñu fi ko leen ana ko waa kon rëq-rëq dana bari lool waaw te loolu ñi ci bi ñoo ko gën a xam rawatina ñi nga ñi leen di romb ñépp xam nañ xam nañ ne bëgg renforcer daara bi ak bëgg mu dëgër moo tax sëñ bi dugal leen seen biir ngeen di ci doxee nu ngeen mëne ak nu ngeen mëne nu ngeen mëne nu ngeen mëne seen këm ba kattan damay wax ne fi ngeen di xëyee ak fa indi liggéey ji xëy ndakaaru xëy ji xëy ndakaaru ñëw liggéey si Tuubaa seen tool bi soron dool ko jar nag yéen a xool ñu daan jóge Tuubaa di fekk seen Tuubaa gànnaar ñooy ngeen teg seen bët waaye ngeen xam ne dara rëwiyut nag la suñ Tuubaa yoroon ca gànnaar yor ko fu ma nekk ba tey mi ngi moom fii itte ji nga xam ne moom lañ ko daan sàkkoo bare ku ko ittoo rek ku ko am rek jot ci te xam ni itte jooju mi ngi fi lu jamonoy xat-xat lépp bokk leen sëriñ bi leen ko yanu ko seen digg bopp te lépp lu leen nar a yàqal sëriñ bi sànni ngeen ko waaye nag ki nga ko seqal di am na pay moom ñu ñëwul bor de dafa am pay te kum dul liggéeyloo goro soxna kum dul kum leen def liggéeyloo kum ne fay du la liggéeyloo kon alhamdulilah rabbil alamin bu nu boole ci ñu koy xëy ci tool bi te tool bu gën ñoro tool bii kat amut lislaam rek moo di torom te fii mooy waar bi mu dal kon ku fi dal ndoog ku fi dal moom alhamdulilah rek nga war kon yàlla buñu gi muñ dugg yàlla lépp di yàlla yàlla suñu bopp bu mukk ndax xam nañu sëñ bi nangu na ko moo tax mu ni liggéeyloo waaye ñun nag yàlla buñ def lu ko yàq damay gis ci suñu bopp yàlla nañ gis ne rek waxtu nañ xëy ni rek ndigal lu ñu rek nañ jàpp ne ndigal loola ci la ngërëm sëñ bi ne defoon naa démb defoon naa bëkk démb buñ ci am soxla te te noonu ngeen di doxee nag daal tawfeex ba noonu ngeen di doxee waaw waaye sëñ Tuubaa nag moo mel noonu comme ne dimbali ku nekk da jàppal mooy teetal boppam fa nga teg sa fa nga teg sa tànk tey ju nekk moo gën fa nga tegoon nga tegoon démb waaw ba ba ñuy tàbbi aljanna kon alhamdulilah rabbil aalamiina ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jonte itam ci mbooloo mu nga xam ne def nañ ci kër yi ak waa dëkk ba yëpp ak képp koo xam ne jàpp na ci ndax lii ku ne xam ne positif la waaye defal ko ngir jumaa ji rek lii jumaa ji mën na cee war ay at waxuma ren waaye at mën na ko cee war dañuy jëfee seen itte rek jëfe seen xol jëfe seen positif waaye nag ki nga ko seqal itam positif la jëflante ak ni mu sëriñ yàlla na fayee nu kaw nu kawee ni ngeen jëflante ak moom waaw nim nu na fayee noonu nim nu gënee na def ngeen seen kam kattan moom yàlla na fayee nim nu gënee yàlla na na fayee nan na fayee bu nga defee jëpp dana baax bu soobee yàlla jërë ngeen jëf di leen sant mbokk mbokk ak suñu ngërëm ak suñu ñaan yëf yaa ngoog ñu ngi di gën di bu ëllëg ba ci kanam seen njuwaat liggéey liggéey baa ngoog waaw sakku ndox xel wal tudxil al-musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al-wafi alhamdulillahi al-karim على الثغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني